jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb mbokk yi nuyu nañ leen am kontaan ak mbégte comme niñ leen koy defalee saa su ne ki ñu toogal nag kenn du ko présenté ci làmb parce que bërëg bërki démb gis ngeen stade Jom Iba Mar jaloore ju rëy ji mu fa def te man wax naa ko léeg laa wax dëgg Calcio sama mbër la ndax maak moom dafa jiitu làmb ndax wolof daf ne ragal féete day xañu wërsëg roi des arènes parcelle incha allah rabbi bokk na ci ki ko fay indiwaat. te am nañ ci yaakaar bu baax moom Calcio ginnaaw loolu dañ koy nuyu bàyyi ko mu nuyu mbokk internet yi sama waa ji kenn du moom siyaar naa la. Bajil maa ngi doon siyaar bu wér te wóor. bilaay bi damaa mënul waxee fi mu toll nii lu bëri bari parce que daa am lu ma lu ma metti quoi. daaw a nuyoo nii de am na nuyoo bu la gars yi xamee woon. non jat boobu def naa ko bi ñuy ñëw ci yoon wi. Ah. waaw nuyoo boobu nuyoo naa ko ci yoon bi ñuy ñëw bisimilah sar bone bi sar sar bone yoo bone ee eh, dam booy yoo jam yeeso laatin faatin jaaban muskora kumba bete sire bete loolu nuyoo naa ko. Kaso ñu ñëw ci combat bi sa diggante ak parisien Kaso da nga ñëw kenn xameewu la ci làmb parisien jàpp la di la dóor di la ba ngay bëgg a dee dégg naa guddi gi reeroo sax. ay dóor na ma teree reer ah, dóor. na la mais da nga war a laajte lan moom moo li indi yooyu yëpp lu gën di man ma neexoon keroog combat boobu noonu du ma dem sax pour naa damay dem bëre. ah dama am blessure lii ni gis nga ko ni man lii laa bëre wala ci làmb ji. est-ce que du jour lii ca lii mag ma dale woon ca signature contrat ba ci jouru làmb ji. lii ma ne neexoon ci jouru làmb ba ne yàq làmb jàmbur moo tax ma dem bëre. yaa ngi doon mu lay dóor ngay fayu de. non non moom laa la expliqué parce que loxo bi nii bu ma ci dóoroon mën naa ci gaañu gaañu boo xam si après nii après combat mën naa ci defaat loo xam si moom moo taxoon rek du ma mën a dóor parce que dama ci doon sóoraale lu bare bare parce lii bu ma ci woon mënoon naa ci gaañuwaat gaañuwaat boo xam si bu ma paree nii amputement sax mën na cee am. moom moo tax waaw loolu moom moo taxoon ma ci doon sóoraale lu bare. mais yoo dara jotuma combat boo xam si benn yoon kese laa ci contact benn yoon nga contact ci ah, ah, parce que mënu moon woon a contact. lu tax loolu. mënu ma woon a contact parce que dama doon dem carré ni ma pour bañ booy gaañ ma quoi. Hmm. benn yoon rek la barki alxuraani karim benn yoon laa contact ci combat bi benn yoon kese kese laa contact ci combat bi am naa lu ma parce que 15 jours yoo xam si lii nii pour ma jàpp mënu ma bu ma demee ci salle bi duma ma mën a entraîner du ma mën a jàpp bu ma demee tamit contact du ma mën a jàpp. lii gis nga ko nii lii boo gisee ni nga xam ne lii lii dafa métti. yow bi dafa déplacé wu de. loxo bi fii dafa déplacé wu yàq bi daa daw de lii da ko war a faj de. non naa dem faj ko bu lëndee bu soobee suñu borom dem hôpital fee hôpital prince euh, pour faj ko. est-ce que yéexoo ah, dëgg la yéex naa jug mais amul problème lënd soreetul waaw comme tey la samedi bu lëndee incha allah naa dem faj ko. ñëwal ma ci sa combat yaak parisien préparation parce que signature bi dafa jot. nga indi ko giita ngaas dóor ko biir arène nationale mu guuxal la ko nee na xaw ma loo nangu ci moom waaye keroog bi nga ñëwee ci làmb ji dóor yi comme mbàccum gerte. parisien ndeke ni mu tuutee sew diis la loxo yee baax la. mu yow déggu mu la expliqué bu fekkoon ne man combat bi dama cee indi. Ah, loolu wax nga ko ba pare mais ñëw moom laa lay man la bu fekkoon dama cee ñëw ak loxo boo xam si loxo bu amul benn problème kooku mënu ma dóor te ma fayu mais nit bu fekkee da ngaa gaañu. te man te man nekkuma euh, gauche droitier la loolu moom moo tax léegi man xam naa ne comme maa ngi gaañ li ma waroon a mën a indi moom mooy pour ma jàpp ko daan ko mais moom nangul taxaw mais jàpp ko daan ko laa indi woon mais moom nangul taxaw mais bu ma dóoree boo gisee mënu maa delloowaat mooy sama loxo bi lii ni jiil dafa métti quoi. lii dafa métti ba pare xam nga fi mu toll nii ba léegi nii wóorul boo xam lii dana tane am du tane gis nga. yaa ngi ko gis nii yaa ko sa bopp lii dafa métti. mais ñu ci bari ne nañ Calcio amu ci condition physique mujj gi parisien bu lay door sax amoon sax garde boo mën a aj sa bopp bi ngay def nii. Ah, bu dóoree ga def bii bu dóor nga ah, def. waaw ah, bi ngay wax noonu boo gisee lu tax indiwuma ko moom mooy li ma la wax benn jour benn fan kese kese laa kontaan ko. moom mooy parisien yow kooku man ma bëgg ay victoire téeméer junne nga ma wax naan ma ndax bi nga jël parisien xam nga ko man am naa lu may ragal ci doomu aadama. bi nga simee ko ñëpp dañ nekk mbër la. waaye bi nga bëree ñu bari dañ laa xeeb de soppe moom xam naa yaa ko bëri ci yaa ko ëpp ci réew bi fi mu toll nii. waaw mais déglu mu la sukkee non bu ni ma ba ma sumee ko ñoom dañ ma ba ma bëri dañ ma xeeb ñoom la ma dal xamuñu ko mais yow mi nga xam ni jege nga ma xam ma. waaw waaw non pour boo waxee sa aqulaay taala yow xam nga ne dama am yow. dëgg la loolu xam nga ci dara. dëgg la bu wér ma demee ba ma demee ba jour boobu noonu na ma jël affaire bi nëbb ko. Ah, waaw non damay wax quoi ah. bu ma demee ba nga xam ne comme jël naa tey ji nen boobu ma def ko nii téye ko nëbb ko. Ah. yàlla ak a tax parce que yaa ma. boo bañee arbitre di yàq sa làmb bi jëlal nen bi nga def ko nii nga xam ne kenn du gis sa gaañu bi yaa am ko ma ko. maa la ko wax. ah ko wax. yaa ni ma jëlal nen bi boo ko jëlee nga def ko nii nga xam ne mën ngaa bëri kenn du ko gis. Mm-hmm. waaw loolu moo tax tey ji loolu ma demee ba xam ne bëri naa ba combat page loolu tamit dama la ci sant parce que bu loolu neexoon xel moom doo ko xelal quoi mais bu ñu jugee foofu maa ngi sant sama sama suñu grand Assane Ndiaye moom mi nga xam ne moom moo tëggoon combat bi nekk grand bu baax a baax quoi waaw. moom sama grand sama grand la tey sama grand la ëllëg dara du ko dindi. man ay lamb yi man xam ma demoon naa ba man yoo xam ne man bàyyi woon naa sax lamb bu ma demee ba bëriwaat sax yàlla ak premier moom ma dugalaat ci lamb mais man sama mën naa dem su lekk sama wërsëg feneen fu dul ay làmb quoi parce que avant loolu man maa ngi doon liggéey maa ngi sant yàlla daan di tedd mais tey matin ba nga xam ne dugaat naa ci làmb moom mii moom pël moom moo tax ma dugaat ci làmb mu doon pël du ñaata toog naa ko bëréew ma xam nga yàgg na du dëgg mais moom moom moo tax ma bëriwaat moom pël bu doon moom man du ma sax affaire bëri maa doon lekk sama wërsëg feneen parce que yàlla yor na leneen lu bokkul ak léegi combat leneen loo xam si lu bokkul ak yàpp suñu borom yor na ko. sa combat te bu tijjee sa. waaw bu bokkul ak géej te waaw yàlla yor na ko mais mu demee ba nga xam ni dem naa bëriwaat yàlla ak pël moom moo tax ma bëriwaat mais dafa ni nag oh, olof Ndiaye ne lu bu olam lekkee xam lan na ko gërëmee. cooy lekkee alam na ko gërëmee a dem ci ak fu ma mën a defee émission tamit dinaa ko tàgg dinaa ko gërëm dinaa ko tànk parce que sama lépp la. parce que nee naa la man xalu laa woon. xam nga xalu ndéef xalu ndéef man xalu ndéef la woon moom moo de waaw ndéef xam nga xalu ndéef xalu ndéef mooy xal woo xam day gëmb da nga koy fekk boo ko am na ñoo xam si dinañ ko xam turandoo xam nga xalu ndéef ah waaw man xalu ndéef laa woon mais tey mu ñëwoon nag xam te nekk naa ab volcan moom pël ca la bokk volcan boobu ah, comme moom mooy feeñ daal xaw man moon naa coow bu njëkk yow loolu xam nga del parce que nekk parcelle maa fay léegi ah loolu laa lay wax yow li nga xam ci man bari na parce que samay combat ni nga naan ni nga may joxe ni micro noonu nga naan def sama combat daan toog ci eh, kaw turbine di seetaan di seetaan te bu ma masaan dem fulaak fayda laa daan wane bi nag mooy li ma la expliqué nii barki alxuraani karim billaahi walaahi wa taala bu ma neexoon lamb ji du ma ko sax bëre parce que fii amul kenn koo xam si kuy am blessure naan da ngay bëri waale ab ab blessure. amul mais mu ne ma bëri après la la dab ma def loolu ma ko. sama boy yi sonn nañ ci combat bi sonn boo xam si mënatuma leen a mënatuma reculer ba pare tamit grand bi nga xam moo tëgg combat bi Assane Ndiaye nekk nit ku baax wax dëgg yàlla parce que li ko war ci combat bi yëpp def na ko promotion. yaa ngi déglu si ba pare tamit làmb ji benn jàppale kenn kenn kese moo ma jàppale. Hmm. waaw loo moo tax làmb menum Kalidou kese kese. waaw ton bu mel na baax sama waay bëggul ñuy wax waaw moom kese moom a jàppale ci làmb a part loolu li ci des lépp maa ko génnee sama propre man maay dem jël sama xaalis di génnee mais amul kenn ku ma jàppale ci ñaar dërëm xanaa bu weesoo bu weesoo cartouche mi nga xam ne yëkkati na xaalis mu envoyé ma ko cartouche parce que loolu moom démb la woon maa ngi moom mm-hmm. làmb boolewuñu quoi mm-hmm. cartouche moom mooy yëkkati xaalis bu bare moom may ma ni ma lii def ci nangam combat boo xam si ma dem ba xam dafa metti lamb boo dem ba jël di génnee saraxu saraxu xar lamb boobu metti na. génne nga saraxu xar ci combat. alxuraani karim te combat yi moom mos a yëpp man ay sarax yi ma daan génne ay saraxu oiseau laa daan génne ay pigeon ay yooyu laa daan génne mais nga mais nga dem bañ ne barki Seydina Mohamed. xar bi doo dem jënd fële Seras. xar bi noo yaa Rasulullah. noo ko def noo am si combat bu ma génne saraxu mel noonu. noo def xalam yépp ay saraxu oiseau ay pentante ay dend yooyu la daan génnee ay ginaar waaw mais santaat yàlla nag bu baax a baax yéen waa bool production yéen waa bool production man maa leen di santaat bu baax a baax Assane Ndiaye man sama grand nga sama lépp nga ko waaw oh, amul solo yow sama lépp nga léegi dañuy ñëw ci combat bi Kalso man dama ñëw gis ci sa cimikaay kenn xamul bopp lan nga fa indi Kalso gàllaaj yi bëri na gàllaaj yooyu yëpp gars yi ne doon def noonu la folklore la mais du dara da nga doon xuuxal parisien rek di xuuxal parisien mais yow après nga ni parisien dafa am gàllaaj yéen ñaar kan moo ëpp waaw moom am na gàllaaj parce que déglu musique yow xanaa dégloo ba génnee saraxu xar saraxu ba génne ko ci combat kooku am am na gàllaaj waaw saraxu yu ndaw billaahi wallaahi wa taala xar laa jënd barki alxuraan karim te bokkul ak ay yeneen yeneen non man bu am naa ko parce que ma demee ba man ay sërif baxade damay ñaanal. Hmm. sëñ Saliou sëñ Saliou moom xam na boppam ñaanal ma Ziguinchor so sëriñ fa nekk ñaanal ma sëñ sëñ sëñ jiili si sëñ jiili si ma mu dëkk Touba ñaanal ma sëñ Samba Sane ñaanal ma. yaa ngi déglu ma expliqué. ñaanal ma. non li ma am ci am naa ay sëriñ mais. déglu ma su ko li yàq sama làmb mooy blessure mooy yàq sama làmb mais barki alxuraan karim bu doon blessure billaahi wallaahi wa taalaay une minute combat bi di ko mat. mais man dama gaañ man xam naa ne sax damaa gaañ parce que moom suñu waa kër sax ñu bëri am na ñoo xam ne bi ñu gisee sama loxo sama nga ko tam toog sama ci mikaay nee na moo ndax kalsoo sa loxo mën nga jë bëre mais bëgguma booy arrière bëgguma booy arrière moom moo tax dama bëri waaye ma bëri mais sa waay yow làmb jooju du am sax une minute parce que moom laa la expliqué man la man benn yoon laa ci contact carré mi ngi may dégg te lii dana ko seetaan benn yoon kese kese laa contact ci combat bi boobu noonu carré bu ma ñëwee sax day wax booy pour nañ ma am ci man yërmande quoi buñ buñ ma kii. parce que lii xam nga loxo mooy nit. loxo mooy def lépp. mais gis nga làmb ay am nga blessure rek am nga lu yooyu noonu gis nga fii làmb làmb boo bañee ay am blessure bul bëre parce que yëfu góor la te lamb yow mi nga xam ne yaa ne ci géew bi li ngay gis te néewul ci géew bi du ko gis. góor yàlla dëgg-dëgg non non góor yàlla dëgg-dëgg moom mooy takk ngemb dem di bëre ji. Eh, yow loo doon ah. lan am na yoo xam si jëru di expliquer ci ah, wax. parce que dama dégg ñaan ay yaane ay gunóor nga doon gis ak gisoo parisien ak coup yi buy ñëw doo ko séen ak. waxuma la gisuma waxuma la gisuma waxuma la ay gunóor de. dama la man xabtal bi man naan njuuru semiñ bi moom moo tax man ay ciili laa doon gis loolu laa la wax. njuuru semiñ. waaw njuuru semiñ laa naanoon. noo ko laalee. non bi ñu ma joxoon la rek dañu moon ab xabtal la ma dem waa ji waroon ko jënd treize treize mille waa ni ma cinq mille. Ah. après ma ma mu léegi ko cinq mille man naan ko. léegi nag loolu moom moo doon baxal sama xol bi. moo tax mënu ma a gis. xam nga bi booy bi amee trois avertissement bi sok di ñëw noonu naan ma pour ma teey ki am na trois avertissement man boobu gisuma sax soq. parce que boobu li may gis mooy yëre ku sol yëre bu weex rek. amee xabtal loolu ci yàgg naa am ci làmb loolu doo ko mënoo ko tey. léegi xabtal jëmale woo ko ci parisien. moom laa la expliqué. mais moom ba may dóor man dóor yooyu ngeen dóor man xamal ne dóor yooyu nga wax noonu man yëguma barki salaatul fatiha yëguma dóor yi billaahi wallaahi wa taala ngay dem ardo tamit yëgoo ni sax yaa mais ji man maa ngi sant bu baax a baax képp koo xam ci mi lay seetaan képp koo xam ci sa nu mu tuddati ñi lay seetaan nu leen di wooye waaw bépp internet boo xam ci mi lay seetaan ci wasaare bépp internet bépp internet bu lay seetaan maa ngi koy maa ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla defal jàmm yàlla na ko yàlla defal lépp loo xam si li mu bëggee yàlla jox ko mu am xarum tabaski ak lu ko war ci moom internet yi lay seetaan lépp liñ bëgg ci ñoom yàlla na leen ko yàlla defal yàlla na leen tabaski yomb ci ñoom quoi yàlla am na ko yàlla mën na ko yàlla na leen ko yàlla defal. nga jógee ci combat bi ñëpp naan Kalso dafa war a bàyyi bëre non Kalso dafa war a entraîner bu entraîner mun naa doon champion ci làmb Kalso dafa war a wuti garde jàngoro yëpp dajaloo nga jël siti bébé Elton moom paan soow lay teg di ko sangoo làmb jë nee na da dóor ba nga dee dee la wax dee waxul da lay daal dóor ba nga dee. yow xanaa waxoon na waxoon naa sax man bëgguma affaire affaire. xanaa déglu lu muy man bu doon pëlmee du ma sax hmm. yoo xam nga ne yow bu dee teraanga dong am naa ko. xam nga ci dara parce que ñoo bokk koñ am na loo xam ci man. làmb ji ay affaire foo rek moo taxoon ma dugg ci mais. bébé Elton nga jël mais damay dégg damay dégg mu wax la damay dégg mu wax la bu baax a baax. dama ne bu dee fu ma <coughs> sama wërsëg am naa ko. pare que yow xam nga ba ma juddoo ba léegi liggéey lañ ma xamee. ma musuma dem ci kenn di ko ñaan benn dërëm. musuma dem ci benn doomu aadama di ko ñaan benn dërëm. li nga xam ci man nit xamu ko ci man parce que man maa la yar. lu bare xam nga ko ci man li ma xamee moom mooy fulla nga ma xamee fayda ñàkk ma jom. liggéey la ma nit xame te bu dee teraanga boo xam si am naa ko am naa ko yow xam nga ci dara am nga xam nga ci dara parce que fekk nga ma gàmbi te xam nga ne am naa loo xam sama yifu bopp yi moom moomal sama bopp. ba iranien di iranien bokk nga ci li ko li ko dawal ci xale. macha allah waaye ñëwal ci combat bi ñëwal ci combat bi. Ah. sa diggante ak bébé Elton maa ko jëlee barki démb arène nationale mu waat ni da lay dóor ma nga dee. te man nag wax dëgg ñëpp xam nañ ni sama doomu nday nga sama xarit nga suma sañoon dangay ngay delloo avancé bébé Elton ndax maa ngi yow ñooy waxtaan. yow yow yow <coughs> yow ma la waxoon. yow du xam nga nag xam nga nagu. yéen ma la dee waaw xam nga nagu Ramo. nagu nag yaa koy daw waaye dawul benn nag. ah bébé Elton moom nga wax noonu saafara mbooloo laa la saafara mbooloo la moom. moom bébé xamul li saafara mbooloo est-ce ku day laal jox sa morom laal. saafara mbooloo fële lañ ko teg ci ëtt bi képp ku dugg ci biir kër gi boo ñëwee da nga koy diwoo. doom de dama la làmb ci benn combat fi mu ci dese bu ma ci defee crime bàyyi làmb. maa kaso déet waay kaso yow de. yow. xama xama dafa nekk loo xam si xama nit ñi. gis nga nit ki la naan la bàyyi lii wala dafa lee hmm. yow sa dépense man maa ko yor wala. est ce que yow man maa yow yow boo amee fan nga yóbbu yow. man moo amee fan laa yóbbu. est ce que yow man dinaa toog di de woon téléphone naan la ji li jox ma nangam. yow da nga toog naan ma di jox ma nangam. kon man la may am man man maa koy amal sama bopp amul kenn koo xam si ku ma koy jox. fii àdduna yàlla mi nga xam ne moom moo ñu sàkk moom sax amul cent pour cent. parce que ñii dañoo nekk lii ñii nekk lee ñee nekk ne. doomu aadama yi nga xam ne ñu ngi ci tey ci bàmmeel tubaab wax na ci benn proverbe mu ni même les morts ont des ennemis vivants sur la terre. xam nga loolu lu muy tekki. lu muy tekki. mooy dafa ni. Ah. tubaab dafa wax ci proverbe bu ma la ko tekkalee ci olof. mu ni ah. am na xam si ba léegi ñu ngi ci suufu ñu ñu ngi ci ñu ngi ci bàmmeel ah. tey jii am nañ ay noon yoo xam si ñu ngi dox ci àdduna. wala dégg loolu. wala Daado déggoo li ma ko wax. lu leer nga wax. dégg na ko de waaw est-ce xam na loolu li ma ko wax. naa am na ñoom bañ faatoo ba léegi yàgg na te teewul ba léegi seen i noon ñu ngi dox. ñu ngi leen di yéene lu bon ca fañ ne. waaw kon boog yow ñun tey jii loolu noonu yow bu la nit waxalee dara wala mu defal dara lu mu lay méttee. xoolal ne am li bon moom mooy tey jii bu fekkee da naa siidu ci gaalu xaj buñ la fekk mukk ngay lekk. yow kaso daa mel ni li ngay wax nii dafa am. non non li ma wax dafa am lu la metti nag. waaw waaw boo waa li may wax ni met nii damaa xam ne yow man sama wërsëg kenn yoru ko yàlla moo yor sama wërsëg dana ko jël nag mu jaarale ko ci nit mais lépp lu ma war a am maa dee dinaa ko am affaire lamb yi lamb barki Seydina Mohamed pël mais moo tax ma bëriwaat pël waaw pour affaire comme affaire foo ci lan moo daan wax ci moo waxee loolu ba pare ñu soo ko ne pour wax la ni la jiiri noonu mënul ñàkk ci doomu aadama ñun ki nga xam ne moom mooy sallallahu alayhi wa sallam bi jaar na fu ne maam borom Touba jaar na fu ne. Kaso daf may waar Malick na fu ne. maam bëggun dañ jaasaan mag ñu baax ni kenn ku nekk jaar nga fu ne kon boog tey ji comme ñoom ñoo ñoo jaar fa xamu laan ñun ñi nga xam ne ñun jànguñu lu bare xamuñu lu bare kon boog tey ji bu fekkee nit danaa la lay jéem a xeex wala mu lay jéem mere wala naam loolu amul problème at na amul solo amul benn problème nañ añ ba pare bu la neexee ñu waaw fulla googu kay am na ko moom. da ngay añ ba ba. ba ëllëg non non non bu la bu nga eggale ko. fan lañ koy eggale. ci fii nii mën nga ko eggale fii nañ añ rek bu la neexee ñu eggale. Hmm. waaw nañ añ nga dolliwaat ci cinq minutes. yow bi ngay dem làmb ja añ nga añ nga. non jour may dem combat bi loolu laa. añ nga jour may dem ba añu ma. jour boobu noonu non man maa nga dem. kilo banaana laa yóbboon ak benn poivre ma jox ko suñu entraîneur bi entraîneur bi lekk ko. lekk moo ko lekk. parce que mbër bi war a lekk bëre. moo ko lekk. léegi ko lekkoo xiif nga bëre waale. moom laa bëre waale kay loolu dara loolu tàmm naa ko. yow sa entraîneur bi léegi na de xiif. barki Rasulullah xiif laa xiif xiif laa. xiif ma bëri pare ni may def lamb day. sa moom la. non hamburger bi laa hamburger deux mille cinq cent musul am ci àddina. hamburger gii maanaam dama la binjoona laa ko jëndee waroon dem ñaagis ma fàtte ko ci cette place bi pour wax la ne lamb daa metti dama doon nelaw ma fàtte ko ca. man laaj borom cette place bi moom benn maire de moo ko taaxirloo fii sànq. am nooy def. léegi lan moo indiwaat hamburger ba ba stade Iba Mar. non ba stade Iba Mar. non non hamburger bu cher la. hamburger boo xam ne ko jënd hamburger juróom téeméer fu mu amee. xama McDonald la xama royal bi mu mag boobu. waaw royal bi laa doon xalaat nag. Hmm. Hmm. ndeysaan kon nañ leen añ nañ añ ba pare kaw soo xam naa da ngay mujjee añ rek. waaw nañ añ ba pare amul benn bu ñu añee pare. bu ñu waaw kay. amul ci yow la des. ay léeg-léeg yaa wóor. lan Dakar ji. nga topp ci Dakar ji. non man li daf maa mën a wàññi dara man man may may de. ku yéey vingt petit cola Dakar lu mu lay wàññi. yàlla. Ah, dof ragalal yàlla. barki dina amoon vingt petit cola ragalal yàlla kasu. billaahi wallaahi wa taala. par jour barki alxuraan Afrique de l'Ouest ku ko fi yéey. ma suul sama. déedéet. yaa non dama lay comme li nga wax ne man la kuy yëy vin particulier daxaar nu mu lay wàññee daxaar lii ma maa wàññe dara loolu laa la expliqué. daxaar di day monter moom du ak pofton. yéen a ngi pofton. maa gis ko yëy maa gis ko fu mu fekk. yéyoo reeru pofton rek. non non foofu la waxee yem moom. waaw non gis Gàmbi laa ko wax. mbaam buy lekk suufu gaaña man maa doog Gambie ba gis ñu tegal ko am mbaam muy lekk suufu gaaña man ko lii lan la mu ne dañ koy xabtal pour mu gaaw. pour mbaam bi gaaw waaw pour mbaam mi gaaw ah, mbaam mbaam mbaam ka jeex mbaam yii di wangeetu man maa gis kay ñu tegal ko bool suppu gaaña man keroog damaa tiit yow euh, wan naa la photo wala wanu ma la ko. non fo photo naa ko la ma la waaw mbaam mi lekk supp kanja. kon baax na ñu lay jaajëfal bu baax bàyyi la nga tàggu. waaw in euh, jiili euh, añ bi nag neex na trop. añ bi añ moom moo tax xam naa bi nga ñëwee fi mu toll nii continué wu ñu waxtaan lu yàgg a yàgg tam. waaw mais maa ngi sant nag di gërëmaat bu baax fu ma ne dama koy wax moom pël ma dama koy gërëm. waaw mooy sama yaay sama bàjjan sama lépp di gërëm di gërëm maa la xarit di gërëm maa wax yow munoo munoo foo dem jébbalu da pël bu nekkee sa yaay sama deuxième bàjjan ba ak Iba Seck mee fi nekk ak sa caméraman bu ñaawal bi ak yow waaw parce que man képp ku bëgg pël bëgg naa la ku ko bëggul waaw mooy loolu mais képp ku ko bëgg laa bëgg naa parce que nee naa la man moo def volcan moo def volcan def volcan. xalu ndéef nga woon. xalu ndéef waaw xam loolu Daouda sànq wax na ko Daouda Diagne. waaw mais maa ngi gërëm nag di santaat bu baax a baax. Euh, Kéba Kanté. Modou Baye Fall. di woowaat Modou Baye Fall di woowaat Modou Baye ci làmb ji pour wax ne ko kombaam la borom automobile Xelkom di woowaat Kéba Kanté hmm. jour technique moom combat bi moom kombaam la waaw jour technique waaw non man instant bi nii nii xam nga Calcio bu Afghanistan bi. léegi calcio bu Waly Seck la. yow Madou calcio. non non da ngaa bëgg a ngarale. non non mais du question ngarale parce que Waly Seck tey tëj tëj tëj temps bii bu ñu demee ba pare yàlla ak man la man maa ko indi teg teg teg teg teg boobu moom dee woon. waaw sànq waaw sànq yow wóonu ma la vidéo bi wóonu ma la message bi nga kii ma Waly gis na tuus bi. waaw waaw ah, léegi léegi man waaw waal lii dama bëgg nga jàllale ko bu baax a baax combat bi ma war a bëri nii combat Wally Seck la léegi bu ma wootee à partir d'aujourd'hui dee ma woowee Calcio bu Wally Seck. Calcio Faramare. waaw waaw Wally rek Wally Seck xam nga Faramare mën naa mu nekk fi feneen. mais boo nee Faramare yow mi sax bu la neex nga ne Faramare mais damaa bëgg mu leer Calcio bu Wally Seck. lii nag lii nag dama koy wax ki nga xam ne mooy xaritam di doomu ndeyam. yaa ngi déglu jëlal ma ko ko jëlal ma vidéo yaay booy yaay booy jël ma vidéo gaaw dafa am benn xaritam jël ma vidéo léegi laa koy envoyé léegi léegi ni Omar Kébé xam nga ko léegi dama lay jël émission ngay tourné waale keneen di la waaw mam yow yow xanaa waxoon yow yay sama entourage nga bokk wax nga ko la waxoo ko yow sànq mi ñu jógee Dakar wax nga ma sama entourage nga bokk la bokk ci yow yaag sama yaay pël du yéen sama entourage ah? kon kay lu ma la lu ma war a def da laa neex waaw yaay booy pël damaa bëgg bu baax a baax lii bu ma jugee fii ma envoyé ko Omar Kébé doomu ndeyu Waal Seck la. xam nga tey ji bu ñu demee ba waaw bu ñu demee tey ji ba tëj ca temps bi ñu koy tuus yàlla ak mën a tax ñu koy tuus ci làmb ji moom laa tuus open press tuus di ko Esat Iba Mar. Ritambale bi Ritambale la tudd la waaw Waal Seck combat bii nii man maa la ciy woo sama combat bi ma war a bëre fin saison. Kalso bu Waal Seck mooy wax ak yow nii lii nag dama koy jox Omar kebe Omar Kébé nga envoyé ma ko Waal Seck nga ne ko kal waaw. yaa mais mais yow Wally Seck ëppale woo fa Bébé Elton de tamit day bëgg. Oh, Bébé Elton nañ fa tëj Elton moom kooku noonu yàlla moo xool loolu laay def man maa ngi ne sama rox damay entraîné sama roxu instant bi yàlla xam ne am na non Jili Fall xam nga am lu ma la waxoon sànq man la bëgguma affaire. non mais maa ngi bu baax a baax sa caméraman bi ku baax la billaay nit ku baax la man nit bu ma la gisee premier jour xam nga defe naa li ma def ci yow émission bare na. parce que bokk naa sa quatrième édition yi ma defal yow édition émission ñi nga daan indi ñu baax lañ waaye kii tamit aadama mi nit ku baax la parce que gis nga doomu aadama boo demee ba nga xam ni da nga koy gis muy ree rek xam ne doomu aadama kooku baax la. aadama li muy ree bari non ko gis muy bi ma man nit la ma lay xool benn yoon xam ni nga mel benn yoon laa ko gis noonu rek ma xam ne kii nit ku baax la mais wóor na rasulaay euh, sama bàjjan awa ceeb bi ni nga ñu doon defalee yàpp yi tamit loolu tamit. nit ku baax rek ngay def noonu parce que ñun ñëpp nga ñuy dagal di ñuy sànni loolu nit ku baax moo ko def parce que bu la neexoon nga yem fële ci sa bopp mais defoo ko da nga koy yaatal ñëpp jiidi nag yow barki seedi naawoon maa la ko wax fii de fii ak ñaari at gars yi daan na dégg foo xam te fu jaaxal nit ñi parce que da nga xam nga olof Njaay nee na xañ a ragal fii de xañ a wërsëg la day xañ a wërsëg te da nga ñëw nga wane ni yow maak yow benn lañ mais xam nga ne foo ma jàpp ñaar fukk jàpp naa la ñaar fukk ak juróom-ñett. ak yow ca jamonoy taxi ba la. ba ngay indi Ndeye Sali xaw ma nu mu tudd jàng woykatu ngoyaan ba. waaw Sali Mbaye. Sali ba ma ko ma may ko sama caabi oto ba. waaw loolu lépp fi la la fekk wax nga dëgg. ah bul jooy bul jooy. non c'est que li ngay def nii non mémoire. Sali Mbaye da ngay fàttali. nga ko indi woon. bi ci digg géew bi oto bi daal lii. ba mu yàgg ko oto bi nga bàyyi ko caabi bi billahi wallahi wa taala yaa ngi fàttali loo xam si boo koy wax ni tey maire Salim Mbaye fa mu ne yàlla na ko yàlla da may fanu gudd parce dafa tawatoon xam nga Salim Mbaye Ngouane ñëpp xam na leen loo moo tax sànq bi nga ñëw ci oto bi ñu wax man la man li ma xam dafa bari man la li xar mi bëyu li mu lekk di cëpp-cëppi xar mi da ko lekk ni nemm nit ki da koy gis doo xam te fekk li ne ci bopp bi ak li ne ci moom néew ca keneen mais da ngay xam li ngay xam noppi mais wóor na alxuraan karim yal na la yàlla gudd fan ak wér gi yaram yow nag yaa xam li nga xam ne yow bëgg nga ko lépp lépp lépp lépp lépp yal na la ko yàlla def parce que nit ku. nit ku baax nga mais nag nga joxe mënu mënu maa sant mënu maa wax te du sant te du sant euh, Moussa xam nga ko Wëz xam nga ko Daouda mu ndaw xam nga ko Ousmane xam nga ko Laay Sabali xam nga ko sama booy bi nga xam bëggul ko tudd foofu xam nga ko ñooñu moom ñooñu. ah borom oto bu ñuul bi wës du ma la fàtte Moussa Ndiaye Laay Sawali Daarum Ndaw Ousmane ñoon du ma leen mos a fàtte ak sama ma Massamba Sarr seen jiili si sëriñ yi ma nga xam doon na ma ñaanal yëpp waaw du ma ci fàtte kenn. léegi léegi xamal hmm? nga joxe sa numéro pour ñi la ñi lay bëggee nekk ci diaspora bi ñu lay woo. Paul nee bul ko jox. man ku ku bëgg am ci man lu leer wala ku ku soxla sama combat wala leneen leen dangay ngay dem nga wax ak. bëgg a bëggee léegi dana jox Paul. waaw man waaw kay man képp ku ma. joxal numéro Paul. mu bu ko joxee benn numéro day joxe numéro sa wala ko joxe numéro. waaw kon. waaw kay léegi kon yow léegi ku soxla. ah du yaa ngi yaa ne ci wasaare. yaa ngi lire commentaire yi. ki waaw. soxla kay yow na jaar ci yow te yow da ni sama staff nga bokk. tey boo jaar ci man xam nga boo ma boo ma ne yow lu fanaan ci man dana yend lu fanaan yend ci man dana fanaan ci pëlme waaw kon boo am problème léegi yow lépp la wax yow sa numéro boo ko joxee yaa ngi dégg suke boo ma ko joxee mu egg fële ci sama yaay pëlme jërëjëf nit ku baax la nag barke alxuraan kam loolu weesu nit ku baax la nee naa la man ma demee bay bëri waat te ji yàlla ak moom a tax man la man mën naa lekk sama man mën naa lekkee fu ne sama xaalis fu bokk la comme fii ci làmb ji parce man dóor katu waar laa man ba ma juddoo ba léegi. liggéey laa mun instant jarul loolu moom moo tax combat bi xam bañ xamee loolu xam nga buñ xamee comme xam na ni man maay am soxna su tubaab moom ñu ni kii lu mu bëgg soxnaam mi ngi koy defal moom moo tax combat bi ma. Hmm. ah sama soxna ba ma koy takk du ñëwoon nga. tam euh, sëñ Abdourahmane. daa mel nañ ko ñaw de. non bàyyi yooyu la lii dañ ko ñaw. non dañ léegi suñu ba mu koy ba mu di def tuuba sama soxna yëpp fa fekk. ah kon nga xam nga sama soxna loo di dox. ah mais maa ngi sandaat bu baax a baax na mais nag ceeb bi ñu fi añee neex na trop. ceeb bi neex na trop. billaay walaay wa taala yi. jërëjëf yàlla na la yàlla def ngay maam. waaw. mais nag. dina ma yëngal. non dama xam li nga ma xamal oh. xam nga ne tey ji ngooyaan bi nga fàttali nii fàttewu naa ko ba mu mayee sama oto bi c'est te te te noo jili bari na loo xam loo tax sànq bu ñu ñëw man la li nga xam daa bari li nga xam ci man mais nag yemal foofu. jërëjëf Kalso la woon ñu leen di jaajëfal bu baax euh, di leen tàgg loolu kay biti na fanaan wax naa ko nee naa roi des arènes kay bu ñëwaatee parcelle yaa ko fi indi mbokk yi di leen jaajëfal ba ëllëg incha allah di ko jaajëfal bu baax. mais lii nii loxo bi. ma ne amul problème xam nga da ngeen moo faji ko. man la bu lëndee bu soobee suñu borom dinaa ko faji naa ànd ak sama bàjjan ma dem faji ko bu neexee yàlla waaw bu lëndee na ma bu lëndee naa dem ànd ak sama bàjjan pël sama yaay pël sama maam pël sama tante pël waaw sama sama sama yimpaañ pël dinaa ànd ak moom fi ñu toll nii xam nga lii dafa ndeysaan lii li mu def nii dafa rafet mu ni ma jël naa la charge fajal la sa loxo bi loolu lu ko gën a rëy am na te yoo xam nga lii wóoru la xamoo lu cay xew empêchement de baraag yëpp mën na jaa xew xam nga yàlla doo nga xam xëy na bay boo na nga ñaanama pour ampitement bañ ca am na nga ma ñaan te yàlla tax jërëjëf gars yi kasool ba ëllëg incha <laughs>